yoon baa ngi ni ñu koy def li sant yàlla bu baax a baax nag ndaxte yàlla su la mayee nga fekkee gudd nga amee gudd gudd gudd fan may la kàttan ak xalaat ngay def nit ñu di la wis di la jàppale nga yokk ay kilifa ñoo xam ñoo la mag ëpp la xam-xam di la jàppale jiital la da nga war a sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax tëgg loo xam ne yoo say poos ma déw ko nga dépense ci ay millions seen nit ñëw jàpp ci état jàpp ci donc je crois loolu soo ko doy soo ko doyluwul dara day fekk nag ni dafa am loo xam ni su nekkee rek day jaaxal doomu aadama yi. waaw fàttali yamal d'abord fàttali ñu lu ko tax a jóg laata voilà donc l'objectif du salon euh, du salon mooy dajale élèves yi dajale xale yi wan leen ni téere lu am solo la seen dund lu am solo la seen yokkute loolu moo tax ñu wax ñu jël ñu ñi bind téere yi ñu ànd ak ñi nga xam dañuy mool téere yi ak ñi nga xam ne n'est-ce pas dañ koy jaay. ñu dajaloo ñu dajale élèves yi dajale donc ñu koy bind n'est-ce pas pour ñu jokkaloo ñu waxtaan donc dina tax aussi élèves yi nga xam ne moom mooy tool dugg dugg ci coowum téere dina ko neex parce que nit ki liggéey xam ne lii lii ñu di bind wala nga xam nga mu koy def yow nga xam waa ji koy def loolu mën na gën a indi rapprochement rawat na maintenant c'est des questions nest direct ñoo xam moom ngay auteur bi di ko gis mel ni n'est-ce xam ne gis nga koo xam sa sa sa la loolu nest moom moo tax en partie salon bi jóg waaw euh, non xam nga aussi tey cérémonie d'ouverture bi la parce que cérémonie d'ouverture bi sax maanaam lycée moom nag mañ nekk donc tey euh, dañ ñëwoon rek daañu am benn benn boo xam nañu accompagné loolu moo tax tey invité wuñu benn lycée dëgg yàlla parce que tey su ko moo nañu woo école primaire yëpp soo leen ay t-shirt ñëw loolu yomb nañ lool parce que li ñu dépense ci xaalis ëpp loolu mais da fekk di àddina am na ne ni moo demee rek demee ko defee ko noonu donc moment de réflexion la ñi nga xam ne mën nañu porter réflexion bi mënoon nañu gën a ñëw wax dëgg yàlla mais ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko def ñu ko mën ñu ngi fi le professeur Serigne Sylla wax dëgg yàlla ñëpp d'accord nañu conférence inaugurale bi macha allah euh, le professeur Coulibaly nag aussi taxawaayam ak prestance am dafa yokk salon bi Madou Ba Fall waxu noppi Fama Diagne Sène fu mu taxaw kese ak Mourou Samb doy na salon parce que dañ koy invité ba ay Canada France bitim réew bitim réew moom taxawaayam day mët na salon tubaab donc ñun wax dëgg yàlla kon kon kon tey jii waroo woon am lu la naqari mais sa biir discours mel na ne xarab nga bu baax a baax autorité yi nekk biir Thiès maire yeeg ñi nga xam ne ñoom la askan bi fal wóolu leen dafa mel na ñoom joxuñu gëdd sa salon bi Moustapha waaw xam nga joxuñu du du sax salon bi lañ ñàkk jox gëdd du sax salon bi lañ ñàkk jox gëdd mais seen bopp la ñàkk jox gëdd parce que kilifa su waxee mu dañ te mu ko loolu mu wax day kooku yaakaaruma ni am na respect ku ñu war jox. yooyu ñaan kilifa mooy maire yi nii rawatina maire Thiès ouest mu koy wax nommément Thiès nord nit àddina kenn tegul sa put paaka àddina dara loo mënul mënoo ko. am na ci naa président Diattara euh, wax naa ak moom ne ma kat man grand yoruñu xaalis wax dëgg yàlla loolu kooku wàccu naa yow. su ma soxlee tey mooy président mbir mi mais xëy na moom it am na yenn gàllankoor. waaw mais ministère jox na la 2 millions loolu mënul woon defar xew. mais 2 millions dugul suñu poche loolu te loolu mënu defar est ce que xam nga tey la ñu wax ñun avant mi xayma budget 8 millions ñu doon travaillé. budget 8 millions. mais loolu pas important man waxuma montant bi ak la lëg dafa toll ci nii dëkk bi man kenn mësuma dégg may waxee ni wala ci lu lu mel te pourtant ñu ko nekk de gënuñu ma xam dëkk bi demee. gën ñu ma xam dëkk bi doxee xam naa ruq yu baax yi te mën naa fa taxaw am na loo xam ne dama ko jarul man ku ma xam biir Thiès ba ma teg sama tànk mosuma ko teg dara fee sombët nag et man xaaruma di yore ay levier public pour nekk wala pour am dara wala pour am ay ay xottu terrain wala pour tabax kër wala pour dawal oto man man man xaaruma loolu waaw loolu du yow du yëfu gor du yëfu gor du yëfu jullit yomb na topp nga xaar ba amee levier pour levier door a xëcc oto xëcc noonu la ñun xaaruñu loolu pour am ko waaw ah, loolu c'est-à-dire loolu pour moi comme ça loolu aussi rappel la parce que nit ki da ngay am respecter sa bopp on n'a pas attendu d'avoir des leviers munici municipaux wala départementaux wala feneen pour nekk te compté ñu ci éducation jour xëy na ñu dugg si fonte compté ñu donc dañuy xam ki ñuy waxal ak ñi waxal salon bi du maire yi moo ko mën réglé mais dafa am loo xam ne wàllu askan bi la dañ koy laaj laaju moo ko man pour sama pour man pour sama kër sama tur laa koy laaj parce que ba mu bëggee lijjanti xam naa fu may lijjanti ab am loo xam ne doo ko yaakaar donc li ma laaj moomuñu ko li ma laaj moomuñu ko ci turu askan bi laay wax li ñu laaj moomuñu ko te suñ ko war a joxee dañ leen koy laaj ak suñ ko deful nag ñu waxee leen ko li ñu ko war a waxee parce que nag xoolal baadoo la baadoo la nga koy wan ni baadoo la nga man maa Moustapha jaay maa ko wax te fu ñu wax ma réitéré ko waaw ah.